ñu fi nekk ay borom président yow nag yal na la yàlla may ndam am na seen mooy participer. ana Cheikh Top yaay bàyyi naa bàyyi Thank you. bilaay yaa mu yaa ko doon incha allah dama ne. jaune les jaunes. Cheikh Cheikh. jërëjëf. yàlla nga yaakaar nag de. c'est bon ah pare nga. presse bi bu ngeen paree rek. c'est bon ah. c'est bon. waa salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara. tey moom open presse moom inoubliable la pour nous les presse nous la presse. ndax tamit ah cër dafa war a baax ndax ñun dañoo déplacé wu ñëw fii rien que pour indi suñuy image pour mbër mi moom moo tax kon donc ñun suñ taxawee war ngeen ñu yox par respect ngeen respecté ñu mais ñi nga xam xamante ni ñoom ñoo ñu war a accueillir di xeex ak ñun di xuloo ak ñun loolu bokkul ci respect ndax presque dañ a war a jox respect loolu benn message la pour ñu fi nekk nañ ñu jox respect tey nag ñi ngi fii si Médina ñëw seet si Mbaye Gouy Gui mu war a bëree la vent moom ak ki nga xamante ni moom mooy Arame bu benn bras mu nekk combat boo xamante ni bi mooy deux fois su ma juumul muy euh, <laughs> Mbaye Gouy Gui nee na trois fois ñu ñaan yàlla ah mu réussir ci jàmm ci battu yonent bi Mbaye Gouy Gui ñu fekk ko fas yéene waxtaan ak moom mais fekk nañ ci tamit 1000 ko gars di waxee ñoom jéen kayre ay bébé jéen ñoom ñëpp dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg si waxtaan bi mbay gi ñu ngi lay nuyu. maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ku ne sa tur ak sa sant di wax ginnaaw ba nu sant yàlla julli si yonent bi ñuy gërëm sunu ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lam maa ngi gërëm sama sëriñ sëñ Tafa Diouf borom Boa Njaañ. di nuyu waa bawal fa ma dëkk muy reefan maa ngi nuyu ñëpp ak képp koo xam ne deretu bawal bawal mu ngi daw sa yaram maa lay nuyu di nuyu képp koo xam ne deretu Medina mu ngi daw sa maa ngi lay nuyu di la bëggee di lay ñaanal jàmm bu baax di jiital ci nuyu bi waa 1000 pour cent bu Medina 1000 pour cent bépp maa ngi leen di nuyu taxawu nañ ma jàppale nañ ma maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa Medina bu baax a baax a baax maa ngi nuyu nag sama champion yi nga xam ne ñëw nañ deelal ma ñoom Diène Kayré bébé Diène ñoom mbañ ñoom Kéwel Mor Kankang Njaay Tin ñoom Ñagas ah fils de Kati double moteur Sal Bawal Buur Sine am na ñoo xam ne sax waruma leen a gërëm ay Buur Sine maa ñoom ñoo nekk ñoo nekk ñun benn lañ suñuy samay doomu ndey lañ mais képp koo xam ne tudduma sa tur rek maa ngi tuub mais maa ngi nuyu champion yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ak sama rakk yi ñoom Ameth ñoom Rose ñoom BMW ñoom fils de Mbay Guy gi maam Cheikh Abdou Sène sama doomu ndey maa ngi koy béggee bu baax di ko ñaanal jàmm Mor Baye Fall sama doomu ndey sama xarit maa ngi koy béggee Cheikh Thiaw si Babacar Babs VIP man ñi ma topp ñëpp man ñi ma topp bàyyi laat sama doomu ndey ñi ma man ñi ma topp bu nu amut koon xaalis ya man yàqu naa bu yàgg mais am xaalis a tax ma toll fii xam nga ni ma la combat baa ngi yàqu combat bi li muy yàqu-yàqu yëguma ci dara samay doomu ndey Modou Fall sama gars yi seexu yàlla yi ñoom ñëpp noo déglul xam nga boobu ba léegi yaa ngi gis Senghor ñii topp sama ginnaaw dañuy yëkkal seen alal di ko def ci man defaluma leen dara mais il foo ma sant leen gërëm leen ñaanal leen jàmm Babacar bu mot la ma sama doomu ndey sama xarit ma ma Omar Sos maa ngi koy béggee palaatoo sama doomu ndey sama xarit borom ndagaaru maa ngi lay béggee booy caw maa ngi lay béggee baax di nuyu presse bi di leen baalu àq nag maa ngi leen di baalu àq bu baax a baaxa a baax a baax a baax presse bi lépp lu ñu leen def rek maa ngi leen koy jégalu maa ngi leen di jégalu baax a baax a baax mbay li ma lay njëkk a laaj mooy da ngaa xam ndox wala lii lan la état bi wala ñàkk la. maa ngi sant yàlla bu baax a baax damaa entraîné est-ce que ma mën a koo xam nag li ma indi ak sama dooleek fi mu toll bàyyil ba ma simme ko bu ma simme ko di xam ba xam am naa doole wala ma doole. mbay dañuy ñëw ci combat bi combat bi dafa yàqu trois fois. ngay bëre koo xamante ni ñëpp dañ ne ak quoi compliqué armée dafa mën a ah, ko maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi nuyu sama papa Dieye sama papa Dieye seen maa ngi koy sant bu baax a baax a baax mbay ba mu ne ma ah, mu ne ma loo soxla waxal ma defal la ko mooy xaalis muy foo bëgg a dem loo soxla waxal sama papa Dieye maa ngi koy sant moo sama papa Abdou Alé Ndiaye aw ma seen fay taxawu nañ ma jàppale nañ ma manqué wu ma dara combat bi lenn la yàgg na xaar bi yàgg na lenn rek laay def fi mu nii man bëgguma fee ne di wax armée arbitre day soufflé ma jàpp ko daan ko ci kattanu yàlla incha allah. moom dégg nañ ko mu ne bu dee bëre moom moo la ko dàq. yow fi nga teg combat bi xam nañ na jël lépp man eh wala na jël lépp mais bu arbitre soufflé ci kàttanu yàlla maa koy daan incha allah. waaw yi samedi heure yi incha allah fii laay ñëw sibile ba mu neex samedi incha allah samedi incha damay ñëw fii sibileeg 1000 pour cent Medina bi ak waa Bawol yëpp incha allahu rabi samedi Mbaye Gouy Gui ñu gis say sa combat bi dafa mel ni dafa am luñ la dee parce que dafa mel ni da ngay minimiser armée lu xew da nga jàpp ne yaa ko dàq bëre wala adversaire bi ngay bëre. non armée dama dut moroomam lamb defet booleek moom rek defet bi ma jóge laay wan gars yi ne leen juumte la samay kilifa ñëw téyeloo ma sama bopp man kenn xamuma may bëre ñu may taxawloo ñoo ñëw téyeloo ma sama bopp ba ma bëre am safaan dégg ci lu ne nag boole ko ŋaj nag samay bañ dégg naa ci ne mbay ragal laak mbay lii la mais loolu yëpp garaaw innover mais ci kàttanu yàlla bu bu bu samdee bu arbitre bi soufflé sama diggante armée dinañ xam ne xam ba xam mbay ragal la wala mbay am na dut que pare na pour xeex koy kii man men mbër mosuma duma Sarko laa fi bëreet mu dóor ma coup boo xam ne dañ maa téyeloo sama bopp xam nga li ma la waxuñu ma day xeex ak yow ma sama bopp ma jël coup perdi loolu du dara mbër mu ne day jël coup xam nga li ma la duma naa fi ay mbër ba nu daw ma jàpp leen daan leen yaa ngi may dégg man loolu garaawut mais ci kattanu yàlla samedi laa la wax incha dama koy duma jàpp ko fu mu bëgg ma yenu ba taxaw ruut ci suuf. ñeme nga koo julli si. Ah? koo man man li ma la arbitre buy wàcce loxo maa ngi ci kawam. déggoo ma de maa ko wax fii xool yéen ñëpp bu ma ko defut. bu bu ma ko defut bul ma kenn jëlati bu arbitre di soufflé buy wàcce loxo maa ngi ci kawam. kon pirip pirip xanaa mu daw mën naa daw nag. bu dawee mënuma ci dara dama koy karkaral ba jàpp ko rek mais bu taxawee dama koy duma daan ko maay gërëm waa kulub kulu kulu ko kër Mor Sène gépp maa ngi leen di béggee jàppale nañ ma taxaw nañ ma amaat jeeju amaat rëbës amaat sama grand sama xarit taxawu nga ma jàppale nga ma oto jël nga ko dugg ak man ci àll bi defal ma lu ne amaat maa ngi koy sant baax di ko gërëm waa mafia bu ko ci bañ bi maa leen di béggee bu baax a baax a ma maa ngi béggee ñëpp mafia rankang bi maa ngi béggee ñëpp mafia rëbës bi pas soleil maa ngi béggee ñëpp di ñaan ñëpp jàmm waa ñoom Fallou Fall kafe ga waa Géejawaay maa ngi leen di bëgg bu baax a seen Abdou Sène sama doomu ndey borom mafia leli bi yëpp maa leen di bëgg di leen siyaar di leen ñaanal jàmm Médina nag 1 ba 45 Fass Gueule Tapée Colobane maa ngi gërëm ñëpp gis naa ni ngeen ma taxawoo yàlla mi am seen fay yàlla na leen yàlla fay maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm képp ku ma tudd nag xamal na maa jum mais képp kuy commerçant yokkal ma jaay la Sandaga képp ku naa yokkal ma jaay la maa ngi lay bëgg di jàmm man bu ngeen gisee xaalis bi ñi ma fi maye ngeen xam ne commerçant rek a man lii yéen may dégg combat bi li ma ci def ëpp na 10 millions di dem barke arxuraan meeru koñ bi maa ngi leen di bégge bu baax di leen baalu àq nag koñ bi yëpp maa ngi leen di baalu àq buru bi ak booy ak yooyu maa ngi baalu ñëpp àq di nuyu bàyyi laat sama doomu ndey Aliou Coobe sama grand bada seer sama rak maa ngi koy bëgg bu baax di ko ñaanal jàmm bu baax di nuyu sama waa dëkk nag waa Réfane boox maa ngi nuyu Seydou sama papa sama xarit nee na ma nag dinaa jàpp ci billet yi combat bi nag metti na trop mais nee na ma dina jàpp ci billet yi pour ma jël billet yi may ko booyee waa sama papa Seydou Gueye waaw xaram yëpp ba mu daj doo fi dox say tànk pën Ah. fii boo génnee foo dox ci suuf ngay dugg fii nag ay noobul ñoo fi dëkk fii VIP la taawoon la ay booy ay supporteru noobul la fi dëkk yaa may dëkk ay supporter yoo xam ne boo leen gisee doo leen gis téye say poos fii ñi fi ne ay noobul ñoo fi ne waaw kay sama lam ba may bëre ba léegi ni ma amee doole nii mosuma ne amee doole ma yombalal la ko ba may bëre ba léegi li ma yor ci doole fi mu ne nii mosuma koo yor ci sama làmb jëpp yi jàll macha allah dégg nga mais ci kattanu yàlla laa la wax bu samde incha allahu rabbi man nañ ma ñaan yàlla musal ma ci cat man cat rek a ma sonal ak làmb yaa ngi may dégg mais armée bu ma takkee sama bët yi sax bu ma ko jàppee barke arxuraan yenn ko ba taxaw dóor suuf. mais waa waaw dugg na fi daan sama grand mbay Diouf te ci kattanu yàlla Mbaye Diouf ku ko ma a daan daan naa la Alioune Seye Junior ba mu daanee Mbaye Diouf daan naa ko. maam Balla ba mu yenoo mbay Diouf dama koo yenu ba taxaw doot suuf yaa ngi may dégg armée nag xaw ma nu mu daane woon mbay Diouf mais nu ko raw laa koy def ci kàttanu yàlla incha allah. waaw mobilisation. maa ngi bëggee ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne autorités yi nañ ñëw jàmm. yàlla sunu borom génne ko jàmm ba mu bañ a amati ci barke Seydina Mohamed ak képp koo xam ne yaa ngi ci kaso rek ñu ngi lay ñaanal nga génn képp koo xam ne yaa ngi ci ay jafe-jafe yàlla sunu borom teggil la ko dégg nga nañu arène mbay guy gi moom amul benn supporter boo xam ne day déborder di dagg ay siis di dajj ay siis di yàq amut fii ay noobu la fi ne Medina ak Bawal ay noobu lañ li nga xam mooy sol lu rafet sangu ba set sol lu rafet yor seen xaalis dagg seen billet toog supporter seen mbër mu daan ñu ñibbisi incha allah sama benn rakk nag sama doom lenge ki doon toog sama jimikaay dafa génn àdduna boobaak léegi ay trois mois rek moo doon toog sama jimikaay loolu yëpp dama ko nar a bëre waale